asalaamaaleykum mbokki internet people 221 yi ñuy suivre ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku si yéen tey nag ñu dalal ki nga xam ni nii mooy Fouta Ndiaye tàmpi walaa ñuy xuus ci waxtaan bi dañ koy bàyyi mu nuyoo ak mbokki internet ñu koy seetaan soxna Fatoumata Ndiaye Tampi ñu ngi lay nuyu. auzu billahi mina seytaani rajim gannaaw ba ñu sante yàlla jub ci sang-sang yi di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant sunuy waajur waaye di sant kilifa diine ak kilifa aada yi waaye di sant tamit sëñ Babacar Sy mi nga xam ne mooy sunu yaakaar teeg ëllëg di sant tamit euh, mouvement présidentiel yëpp waaye di sant it ñi nga xam ne ñooy mbokk internet yi nga xamante ne ñu ngi ñuy seetaan fu ñu mën a nekk muy people 221 foo leen mën a nekk ñu leen di sant di leen gërëm waaye may sant tamit Thierno Cheikh Bachir Tall afa ba moom toxara maam di ñaan yàlla yàlla may ñu commencé bisimilah jeexle alhamdulilah rabil alamin lépp luñ fi wax rek yàlla doon gënil waaye lépp loo xam ne tamit wax nañ ko nit am nu ko gisee ñu ngi koy ñaan njéggal xëy na xër rek bëgg wax dina tax parfois wax loo xam ne di nga gaañ doomu aadama kon boog sëñ bi mën la bisimilah alhamdulilah fi may commencé rek mooy assemblée laay commencé sa jàngat ci assemblée li ñu gisee ni muy ni mel ak tournure yu si am yëpp sa jàngat ci assemblée lan la. mbaa xam nga ne assemblée bi ku ma ci joxoon ay milliards jox ma ci ñeenti poste ma soxlawu ma quatorzième législature bi assemblée bu ñaawa ngi nii bu salte bu bon donc parce que du lii la nit ñi doon xaar defe naa tey jii nga xam ne mooy askanu senegal bu ñu jëlee kenn wóolu ko. jiital ko ne ko demañu ci assemblée nationale fa nga xamante ne fa ñuy xeexee ak ak yelleefu sénégalais pour nga yeggaluñu fa sunu baat xeexal ñi nga xam ne mooy sunu ak sunu yelleef wala xeexal nga fa li nga xamante ne ñun mënuñu faa yeggee waaye boo ko waxee amaana ñu dégg la pour nga mën a ñëw ñu fajal ñu ko defe naa ne war ngaa am beneen toogaay bu dul toogaay bii parce que boo seetloo assemblée bi mooy assemblée bi gën a yées si assemblée yi fi ma sa am ndax dañ koy ñemee wax tamit parce que boo seetloo au lieu ñu demal foofu askan wi waaye règlement de compte moo fa am ak affaire de leader ak affaire par parparloo te loolu la ñuy xaar et c' déplorable si assemblée bi muy côté pouvoir du côté opposition dootu man ci pouvoir la bokk am na ñoo xam ne ñu ngi ci biir pouvoir bi ñu ngi doxal loo xam ne ma neexu ma kon book man sumay wax damay doon dee ji sax te di jaaxaanaay lu ñaaw la te du lu kenn rafetlu te tamit lii dafa ñaaw ci image Sénégal te du lii sunu maam Senghor liggéeyoon bàyyi ko fi. du lu lu la sunu maam Abdoulaye Wade liggéeyoon bàyyi ko fi lu sunu maam Abdou bàyyi ko fi lu lu sunu papa tamit président Macky Sall defoon fi 2012 ba tey ba tey jii ni ci cëppaandoo ñu war koo mën a defee nii assemblée bu gàtt fan la benn ñaar assemblée bu bon la ñett assemblée yi gën a yées assemblée yi mooy assemblée quatorzième législature bi. ndax ci sa xalaat danga jàpp ne maanaam nit ñu fa teg lañ fa warul teg wala lan moo waral assemblée bi nga nga jàkkantelee ko muy assemblée bu bon. xam nga xam nga lu war a loolu mooy xam nga nit ñi ñu fa war a teg du ma war waruñu leen faa teg ndax ku ñu xool ba saytu la wóolu la ne la kaay dem toogal askan wi am nañ ci yow yaakaar amaana kay yaakaar day tas nga yóbbu nit ki ci lii mu dem nekke ci ca leneen leneen li mooy assemblée bi lu tax mu doon assemblée bu bon au lieu mooy wax naa la ko sànq au lieu ñu dem pour xeexal askan bi mais dañoo dem pour di xeex ay leader ak ay règlement de compte lu war woon mën am assemblée gis président assemblée bi gis nga ko ko fa jox cër ci lu mu mën a wax dañ koy firi. Mhm. may ñu ko benn cër lu fa nekk. golo yi lu njëkk a def premier jour assemblée ubbi lu golo yi def yëg ci ay kaw taabal dem di yëkkati ay urne Barthélémy Dias mel ni ku ku ku ku ñu ne yaa moom assemblée bi. Mhm. ñu fay def yu kenn xamul amee Aïdara jóge fële dangin bi di def yu kenn xamul Guy Marius Sagna di gàddu ay kees di xotti ay feuilles di dugal mhm. ah xuloo bi ni tulleeg màlli est-ce que xam nga ni lii am assemblée lii teeñ bi la yan bi ñëwagul. dañu gis ci ci ci sa biir wax ni nga waxee nga tudd ki nga xam ne nii mooy Guy Marius Sagna nga xam ne mhm. Sénégalais yi dañ dañoo dañoo dañoo kontaan ci ni nga xam te ne nii noonu lay taxawee ci assemblée nationale. lan moo tax nga nga war a wax loolu te ñu gis Guy Marius Sagna engagement bi nga xam te ni am na ko ci assemblée. mooy sénégalais dañoo kontaan ci violence. sénégalais dañoo kontaan kuy dem assemblée war a demal askan bi di dem di def say scène de théâtre di fa def ay yëfu maa tey loolu la sénégalais kontaan bii assemblée da am ba tey dama lay posé waat question donte yaa fi toog tey pour poser ma mais dañuy waxtaan bu séné bi assemblée mësee am ba tey mas ngaa gis assemblée boo xam ne ay forces de l'ordre ñooy génn ci biti ñoo dugg ci biir assemblée bi pour maintenir ordre biir assemblée et pourtant am na fa te tey c'est la deuxième fois tey ji si bésu tey bii mais Guy Marius Sagna moom moom ñuy def référence ma def ma ko référence du sama référence parce que lan la wax ma tey Guy mari Sagna lu mu liggéeyal Sénégal ak lu mu defal Sénégal lan saaga dem di yëg ci ay toog table di xotti ay këyit di xuloo ne fii kenn du fi voté jël ay kees di daw ak moom loolu la loolu la Sénégalais dox te bu ne Sénégalais da nga naan ñenn ci Sénégalais parce que ñi ko ñaawlu moo ëpp ñi ko rafetlu bu fekkee loolu la moom la leen Ousmane Sonko yónni te keroog barki dem bi mu ñuy def seen point de presse wax na ko nee na man dara rëccu ma dara lu ma demul assemblée ndax xam naa ne yéen ñi dem assemblée lañ leen di sant yéen koy def te wóolu naa leen ci yëngi ci may tuuti comme te li nga xam te mooy plénière yi ubbi nañ ñëpp dinañ gisuñ mës gis kon ça veut dire ñoom li ñu leen waxoon loolu la ñuy appliqué kon man gisuma kon li ñuy wax naan dañoo rafetlu Guy Marius Sagna li muy def d'accord kon ci côté Yewwi ak ci côté Benno d'accord ci ci ci lenn li nga xam te ne député yi ñu ngi koy doxalee. am ci li ñuy def am na lu ma ci d'accord. Mhm. li ma ci d'accord mooy député boo demee. Mhm. Guy Marius Sagna bi mu demee ba tey dégg nga fu mu plaider di wax problème population. mais bi ministre yi ñëwee ba tey gi Mary Sagna gisoo ci dal ci kaw ministre rek lay def ana lu mu plaide foofu loo xamante ne population bee ko yónni mu war faa mën a toggal population war ko mën a wax mais di jàng di di dal ci ay ministre di xas ay ministre di xottey ay orma loolu la fa nekkee kon man boole ma nee tey jii ay euh, Guy Marius Sagna mi ngi dénoncé Guy Marius Sagna mi ngi dénoncé milliards yi nga xam te ne nii gars yi ñu ngi koy jël mi ngi naan gars yi bàyyi leen milliards yi ngeen a jël parce que tali amul fii tali amul fii tali amul fii loolu ñëpp a koy gis boo demee bay dénoncé da ngay jox baaraamu tuuma ni ngay dénoncé wax nii en l'air dafa yomb mais tega preuve à l'appui neen milliard temps fi mu waroon dem temps diw diw jël na ko def ko ci temps te mu ngi nii preuve yaa ngi nii te lii ànduñu ci loolu c'est à dénoncer parce que milliards yooyu moom da cee am ma am ci yow nga am ci ñi fi toog ñëpp am ci kon boog ñun sunu moomeel la ñuy xeex mais nañ ko te ci yoon ñu bàyyi ay wax lu dul dëgg ak sos ak xool li la neex nga koy argumenté loolu ñëpp mën nañ ko. mais da ngay xool li nga xamante ne mooy dëgg nga ko dëgg kenn ñëpp ci ànd ak nit ñi mais ci ànd ak kenn. li muy wax c'est archi faux du dëgg. d'accord ñu ñëw ci li nga xam te ne ni mooy assemblée coow coow yi nga xam te ne ni moo fay am ak waxante yu bon yi nga xam te ne ni ñu ngi koy dégg di dem ba nga xam te ne ni mi ngi law ba ci ñi nga xam te ne ni mooy kilifa diine yi naka nga jàngatee loolu. donc coow moom yàgg na fu ne surtout maa ñu bokkul jëmukaay bokkuñu gis-gis bokkuñu bëgg-bëgg. Mhm. ñu parti coow day am. Mhm. coow yàgg naa am assemblée mais mosut a yegg fii. Mhm. ci quatorze législature nee naa la bii mooy cëppaandaw gi. moo fi gën a gàtt fan dëkk. mooy lii mu assemblée bu gën a gàtt fan. mooy bii. at at lay am. bu tegalee du bari mu tas. ba pare moo gën a yokki ëpp problème xam nga ndax lan. man bëgguma ñëw waxu diine. mbiru diine dañ koy jël ñu teg ko fee. lan moo tax bëggoo ñu wax waxu diine. parce que diine amu fi wàll du coowal diine coowal politicien la ak opposition. mais sëñ Moustapha Sy la ñuy wax. mais sëñ xam nga yéen journaliste yi parfois yéen au lieu ngeen jéem a wax resto verso da ngeen di xool liy arrangé ni ñi da ngeen wax te lu bëri da ngeen di jaxasee doomu aadama yi Amy jógul rek wax sëñ Moustapha Sy ki nga xamante ne dafa bokk ci piir nekk li nga xam ne mooy député PUR moom moo am temps de parola mu war a dem wax moom moo ubbi làmmiñam mu ne au lieu mu wax askan wi ak ña ko indi la ne seeni problème mu ne sëñ Moustapha Sy danañ ko bàyyi lañ ko président di ko xokkatal nguuru Macky Sall di ko xokkatal bëgg koo déstabiliser wala bëgg koo kompaloo mbaa bëgg def lii parce que day déranger dañuy sonal seen bopp mais mënuñu ko mu wax ba pare ba daaneel défendre ki nga xamante ne mooy leader am. Mhm. man waxuma Serigne Moustapha Sy mu doomu sëñ Cheikh Al Maktoum jiite Moussa Sidi wala Moussa Sidaat déedéet waxuma kooku xam nga kan laa waxal sëñ Moustapha mi nga xamante ne homme politique la jiite li nga xamante ne mooy mouvement au pire de opposition. Mhm. parce que bu leen fàtte ne sëñ Moustapha Sy donte Serigne la dafa summi mbubu Serigne am so mbubu politicien wàcc ci langue politique kon dañ koy wax. man taalibe Cheikh Pire laa bi nga duggee sama kër loo jàkkaar lool sëñ Babacar dama koo bëgg ba mu jeex lépp lu jokk ci sëñ Babacar dama koo bëgg aw ma xaaj ak seen ak waaye ku dem ba wàcc ci langue politique bi il faut que tu assumes fii amul samba amul bàcc amul kumba ñëpp a bokk yem. mënuñu sëñ Moustapha Sy ñu ko wax lu ñu fi waxul nit c'est parce que moom moo bàyyi sëriñam summi mbubu sëriñ bi sol mbubu politicien bi kon politicien boobu la ñuy waxal. kooku ba mu waxee loolu Amy Ndiaye dafa ñëw na ko ana sëriñ ba waxoon taxawoon a dafa am ay rawaan yu mën a génne président Macky Sall biir palais yéen ñëpp dégg ngeen ko. Mhm. gisaguma ko. kooku anaka waxoon Khalifa Sall buñ ko tëjee mooy nekk deuxième personne gisuma ko. Mhm. fii sëriñ bu génn nekk politicien dal ci sunu leader dañuy génn dal ci moom dal ci kawam. ndax wax jooju wax ju rafet la jëmale ko ci ki nga xam te ne mooy sëñ Moustapha Sy. Oh, ndax wax jooju yow xanaa déggoo ma. ndax wax ji amoo lenn loo ci bañ. waaw xanaa déggoo ma xam ma ci mhm. parce que politique Moustapha Sy bu moom moo wax moom la tontu waxul ak sëñ ba ba toog ci waawan nekk ca champ de course nekk mu jiite Moustarchidine wala Moustarchidaat dafa ñëw ci langue politique bi Moustapha Sy mi ñëw ci langue politique bi kooku la ñu waxal tamal je suis tout à fait d' accord ak Ami Ndiaye waaw parce que xam nga nax lan fii bi ñu arrêté kii nu mu tuddati ki nga xam ne mooy Khalifa Sall ku toogoon ci ginnaawam du sëñ Moustapha mhm. Moustapha Sy mi jiite Pire mhm. du moom ma waxoon Macky Sall bu ko tëjee moom dina ko tëj. fii nii barki Demba Ndiaye ba ñuy dem Tiwaawan opposition di dem Tiwaawan ñuy wax seeni wax pour àndandoo xeex président Macky Sall pour mu wàcc ci kan lañ dem a ku leen dalal du Moustapha Sy. Mhm. mi jiite mouvement au pire. Mhm. doon opposant mhm. du mooy moo moo dala ñoom Ousmane Sonko ak ñoom ñëpp. barki Demba Ndiaye. ba ñuy wax waxu affaire Ami Ndiaye bi fan la ñu defee jee lii bi nu mu tëddee point de presse bi. Mhm. doo du seize seize pire. Mhm. ñan ñoo fa nekkoon du ñoom Ousmane Sonko ak ñëpp waa léegi muy politicien yéen politicien wax politicien tontu ko ngeen ne pourquoi parce que sëriñ la mais bu nekkee sëriñ boobu la bañee war a dugg ci politique xam nga nit ñun Sénégal xam nga lu ñuy yàq. waxu mhm. naa nañu jégal naa fekk ak bëgg a jaxase nit ñi. gis nga nit mbir da nga koy xool tel moom dafa wàcc bi mu nekkulee politicien nekk sëriñ rek kenn waxu ko dara lu mu wax day jàll. moom moo ñu wàcc ci langue politique bi ba dem instant yi ni moom bëgg naa doon président ndax yor na mouvement. yor na yor na ay député ay député nekk assemblée. di wax lu leen neex. di def lu leen neex fa foofu foo gis rassemblement ay député ma nga fa. di ànd ci rassemblement ba waa léegi yéen kooku naka la mën a wàccee ci langue politique. ne day politique. am ay nitam ba am ay ay ay ay li nga xamante ne ay député di ko xeexal fi nga xamante ne mooy fële si assemblée nationale léegi ngeen ne kooku kenn mu ko wax dara lu mu wax rek gongo. d'accord mais ana ana ki nga xamante ne moom mooy sëñ euh, sa sëñ Béthio yal na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana te taf ñu si barkeem. ba mu ñëw dugg ci politique bi lan lañ ko fi waxul lan lañ ko fi tuumaalul ba teg ko fi kaso. parce mm-hmm. que murid yi génn nañ ne sa euh, sëñ Béthio buñ ko wax lii ana tey jii sëñ Modou Kara. ba mu ñëwee dugg ci langue politique bi ba barki Demba Ndiaye la mu def fee Touba luñ ko jël dañ ko dagg def ko ci TikTok bi naan président Macky Sall la ko jox milliard lu nekk ñu yekk ko ko. ana boobu murid yi gisoo ko génn et pourtant sëñ Modou Kara mi kilifa diine bu mag a la waaw wala déet gis nga kenn ci ay murid yu génn ne pourquoi lii. ana barki Demba Ndiaye ki nga xam ne mooy sëñ Mountakha bokkul ci benn koo ba parti politique loolu toogal fi toog toogaayu maamam nekk sëñ Touba fii tey ji ci Touba. Mhm. keroog ba mu ñëwee fii Ndakaar président Macky Sall dem seeti ji ko mu gërëm président Macky Sall sama sàkkalu jimaam lan lañ wax koo muy fay wax président lu tax mu koy gërëm mu ko lu tax muy jël mouridisme bi bëgg koo politique yi boobu ana ngeen foo le loolu waxoon ñi di ngi rëy ñaamañ tey di wax lu ñu waxoon léegi sëñ Moustapha Sy daal moom daal moom il est intouchable moom daal moo sañ doon sëriñ dellu sañ a doon politicien moo sañ wàcc ci langue politique bi def lu ko neex te personne ne loolu moo tax ñu door Ami loolu moo tax ñu weq ko muy jigéen bu bëriwul ba nekk si urgence fi may wax ak yow ni à l'heure actuelle et ça reste impuni ah non ça ne passera pas cette fois-ci. d'accord ci ci dóor boobu noonu laay ñëw. <laughs> tey tey ñu gis ne loolu noonu moo xew. mais ngir tax Amy Ndiaye pour éviter woon loolu yëpp est-ce que jaaduwul woon tey bañ ñëwaatee ci wax yooyu mu baalu mais lu ñu wax. mooy oh, pourquoi au nom de quoi muy baalu. mais ci oui ma est-ce que xam nga ne tey tout est préparé. damaa bëgg Sénégalais ñu xëpp seen i bët di xool lu tax Amy Ndiaye di baalu au nom de quoi Amy Ndiaye di baalu barki dem mooy Ndiaye Antoine Philippe Diop gay nag xombal ba mu demee foofu noonu lan lañ ko fa yekkul lan lañ ko waxul pourtant boo dañoo wax ba doyal mu déglu leen mu pare mu taxaw tontu leen te ba mu leen tontu tontu leen xam-xam ak dégg-dégg ñoom ñëpp ñu ne gongo yow nit génn wax tey dañoo préparé lépp bi ñu ñëw benn moo dañoo takk seen i brassard rouge yoo xamoo ñi xam nga ay bande de cerveau dañoo xam li ñuy def waaye bi dañoo takk seeni brassard rouge tey lan moo xew inauguration université Hampâté kii Hampâté Mbow xaw ma. Ahmadou Makhtar Mbow. Oh, ah, Ahmadou Makhtar Mbow buy président di inauguré tey. Mhm. ñëpp daw wuti ji fa. Mhm. mu liggéey liggéey bu am solo. Mhm. ñu bëgg loolu pour nit ñi bañ cee bàyyi xel bañ cee focus ñu xëy ah, ah Ami Ndiaye kañ la wax lii kañ la ko wax. ça fait 4 jours aujourd'hui ou 5. barkaati démb barkaati démb mu def ñaata 4 jours tey. Mhm. lu tax boobu ba tey takkuñu brassard rouge waxuñu dara ñu bàyyi ba tey nga takk brassard rouge benn. beneen bi mooy boob ba tey wax ji wax nañ ko ba mu jeex ba ñu point de presse ba wax li wax ba mu jeex lu fa sulwaat wax ji tey xanaa Amy Ndiaye ngeen yëpp xanaa Amy Ndiaye mooy fange yaay. nga fañ bàyyi mais tamit non dañuy waxtaan rek. ku ñu laal mais mais dama ne dañuy waxtaan rek lu tax. boobu mën na la fa temps yëpp mu ngi am. boobu ba tey waxaatuñu ci lu tax mu xaar ba tey yow man ma jàkkaarloog yow nga dal sama kaw nii kook kooku Massata lu mu def du dafa dal si kaw Amy Ndiaye direct lu mu ko wax toog fii wax sudu sëriñ ku ko fi waxati xaw ma nit ñi mu ne tey. boobu yow da mais moo tey ba tayaatoo si c'est à refaire il va elle va le refaire. Fatoumata li nga mais mais attends mais attendez il ne faut pas la face quand même non gis nga nañ waxante dëgg. parce mhm. que coow bu amee ñaar la. gis nga mbir bul xool la mu tontu xoolal la lalu ci suuf na xoolal la lalu ci suuf ñoo wax coow keroog ñu téye Amy Ndiaye daggatal ko ay saaga ndey wax leen lu ko neex. mais jël may ma rek jël ay baat wax may ma rek tey Amy Ndiaye ñu wax bu ñu waxee am Ndiaye dee tontu baat ak tontu la léegi loo bëgg mu ne ko maa tey ah lu mu ko mënoon a wax bu ko newoon sax sa yaa juru la est-ce que c'est une raison mu jóge fa mu nekkoon muy góor doonul góor sax. ndax jeeg bu jigéen la daa samp jeeg solu tubéy moom daa oddu sa samp jeeg masata daa samp jeeg jóge fa nga jóge ñoo fekk ku jigéen ki fa mu toog nga ñaf ko mbaj ñuy wax pareeguñu ku jigéen ki génn yéen gis ngeen pourquoi waxu leen ci niñ ko weexee ci biir keneen ci sol yére bu weex bi hmm. te mooy jigéen bu weru mais nag xam nga ñan ñoo matadi hmm. xam nga ñan ñoo irresponsable hmm. man du ma waa yeewi dara lu ma leen wax tooñ leen man waa benn Bokk Yaakaar laay wax ñoom ñii toog jàkkaarloog nit mu mën a door dóor kii kooku wiiri ñu mën ko di ko dóor ñit di buux doon ay irresponsable seeni jigéen mun leen a sax défendre seeni jigéen parce que dañ leen jàppee nooy neex dañuy po kerem bar bastik ku ma ci jox sama morom tàkkamti ko nga ne Ami Ndiaye amul droit wax mu wax ñu dóor ko léegi daal ñu génn ñu amet ay dara dàngin be ba baabun bi bukki ba bukki bu bon bi bu duggoon ci àll bukki ba gut gaynde ba gut ndax moo sanjoogoo yem nattu xam nga boo amee lu la jomb dangay defee lu mu la neexee. kii Ahmed Aïdara dafa ñaawlu li nga xam ne nii. ma def na ko mais mais ma Ahmed Aïdara def na pur que ça Ahmed Aïdara def na pur que ça. Mhm. demal dugg ci seenu YouTube moo fa moo fay revue de presse di xoolal la muy yekk. balaa muy commencé ñëpp a ngi koy gis yéen lu tax yéen journaliste yi tëggeewu leen dee di seet wala da ngeen di leen saaga baa ku désabonné wu ci yéen moo tax dëgg moom dangeen koy raay raay parce que bañ ku leen saag wala ku désabonné wu ci yéen ba yéen waa kër Ousmane Sonko lu ñu def rek ngeen a gongo tey yow kon yaa ngi cautionné tey lu ñu def Massata li mu def am Ndiaye da nga koo cautionné da nga cee ànd non dañuy waxtaan rek normalement tey jii Massata war woon fanaan ci lalam moo ko jigéen moo ko goon ki wéq Amy Ndiaye tey bu jaaree yoon war ñoo fanaan ci këram ana féministe yi ana ñu def quel que soit alpha nul n'est au-dessus de la loi te kenn du fayal sa bopp commission dafa am yoon dafa am mais jàpp jigéen di say yaay di sa jabar di doom di jigéen di lépp am na teg ci ngeen tey ko di ko wékk koy kum ko wékk mbaam ndax ay mbaam ngeen yow kii wékk ku jigéen ki ak kii mbaj ko jigéen kii yaay war ngaa war ngeen a dem tendre micro seeni jabar wala seeni doom nga war a xam ne ko ñu ngi dund dund bu metti ndax ku mën a def li ma defoo ko ci Sénégal mais mbondo entier yëpp nga koy def kon tey jii feneen foo ko def du safee parce que yaa ngi ko def sa biir kër te lii nag boo xalaatee mu yem fii du yem fii ñun dès demain ñu ngi constaté wu sunu biir dès demain on va te fi mu gën a méttee nag dinañ ko riposter xam nga ndax lan lii du ñu nangu muy doon escalier violence bi faite aux femmes non ça ça va cesser par A ou par B ndax nag mënuñoo nekk ci kër yi boo leen xëyee liggéey ñun ñooy togg ñun ñooy defar ñun ñooy toppatoo njaboot gi ñun ñooy ëmb ñun ñooy wasin ñun ñooy ñun ñooy def lu ne yéen boo leen tëdd dina la doom ñu jooyee sax danga ñu ne la fëkk fëkk jógal doom bi mu ngi jooy kenn du nangoo doon mu doon sa doom ngeen tëdd dina la ñu jël sunuy doom di nax ba mu màgg bu tekkee nga ne sama doom la maa ko <laughs> tey ngeen jàpp ñu bëgg la ñoo ñu diñu diñu xokkatal diñu dóor ba ñuy door fi nga xamante ne fa ñu war a waxee coowal réew mi fa ñu war a la lijjantee askan wi ngeen dem ba foofu di fa dóor jigéen rawatina jigéen ju wéru jigéen bu nekk en état mais c'est honte et c'est déplorable ku ko waxul ku ne ma xam ne naa fekk nga te complice nga léegi malgré li nga xam te ne nii mooy coow li am na sëñ Moustapha si moom ci boppam bu génnoon woote li nga xam te ne nii mooy dal est-ce que procédures yi nga xam ni nii jot ngeen ko entame di ngeen ko bàyyi rek lépp ci ci war ma rek dama ne la warmaal nañ ñëpp ñëpp la ñu ormaal kër kilifa diine yëpp la ñu ormaal mais lii toll na foo xamante ne nii il faut que ñu régler ko une bonne fois pour tout gis nga président Macky Sall mi nga xam ne man moom laa yaakaar muy sama leader. ci politique ma yaakaar ko ci politique muy sama leader. bu ñu waxool arrêté leen di sax duñ ko arrêté xanaa wax ji jeex na gis nga lii ça va coûter très cher Mansata te sata amatul droit moom di dugg assemblée. assemblée amatu fa wàll moom ak kii wéq Ami Ndiaye te dinañ ko xeex. danañ jóg laajuñu autorisation bu yeboo ñun ñëpp ñu jàpp ñu tëj mais ñun jigéen ñëpp danañu jóg day te ñu ngi woo jigéen ñëpp suba à 15 heures fee nga xamante ne moom mooy permanence APR ñu wax ci génn ci dox ko te incha allah rabbi dinañ ko xeex. donc lan ngeen di xaar ci nga xamante ne ni mooy yoon. mu def liggéeyam dana ne kenn du ko jeex mu def liggéeyam surtout maanaam may sa message. ki nga xam ne mooy ministre de la femme barki démb la dem fee ca assemblée ba génnee numéro boo xam ne mooy 116 violence faite aux femmes ministre de la femme nag violence def nañ ko fi nga xamante ne mooy biir fi mu toogoon bëgg ñu voté ko ñu voté ko ko foofu kon boog yar bi dal na ci kaw moom ministre de la femme moom la ñu njëkk woo mu génn mu wax ci lii bu waxul ci lii ñu xam na ne moom mooy duñ ko doon doyee motu ko te xam naa dina jóg wax ci muy Fatou jaare ministre de la femme yar bi dal na ci kawam tey te na jóg nag mu wuyuñu bu ñu wuyul ñu fajal ko bopp comme te moom la yàlla jiital président Macky Sall jiital ko moom na jóg ci lii wa ilaa ñun dinañ ci jog moom moom alaa kulaa dinañ ci jog moom mooy ministre de la femme nag bi dafa dal ci kawam na jog mu réagir nu mu gën a gaawee te tey waru tëdd ci lal moom Fatou jaare te réagirul dafa war a réagir waaw euh, wax ji nga xam te ne Amy Ndiaye wax nañ ko ak euh, li nga xam ni rangement bi nga xam te ni waa yeewi dem def nañ ko dem ko dem ko fi nga xam ne nii mooy piir ndax jàppoo ni waa yeewi bañ wax ju ñaaw moo waral ñu def loolu noonu. may wax bu ñaaw xam nga ne waa yeewi yow xam nga ne ay naafeq rek a fa nekk ay seytaane satan ñun dëgg sunu borom moom wax dëgg yàlla man xam ma senegal lu mu lu lu mu lu tooñee sunu borom ba sunu borom ba muy wàccee kii yóbbu ko Pakistan yo yóbbu ko fee nu tati ca xeex ba fa mu méttee. Iran Iran wala Irak mbaa mu yóbbu ñu ko ca Poutine mu ñu koy wàccee fii ci Sénégal. kooku la muy Ousmane Sonko. sunu borom mënoon na ko wàccee ci yooyu xeet ci xeetu naar ya te ñay xeex mu bañ ñu koo wàccee sunu réew mu sell mi. da nga jàpp ne Ousmane Sonko nitu fitna la. ah da laaj wala confirmation ngay wër wala ngaa bëgg ma dut ci baaraam kañ la fitna commencé ba mu demee. uti neex neexam dellu ne kompaloo la ñu xëy warok woo ko na ko suba ñëwal tey jii mu woote ne suba rek maa woo génn leen résistance sa de la lutte libère fukki nit ak ñeenti dee ci neex neexam moom moom ñu ci askanu si si mbiru Sénégal xeexuñu si jafe-jafe Sénégal xeexuñu ci coono Sénégal waaye moom fa mu demee ba yëg fa neex neex loolu la woo askan bi leen génn la ñuy xeexal ma ba fukki nit ak ñeenti dee mu toogaat laajte ne dafa bëgg a def euh, génn ñu ne ko autorisé wuñ ko mu ne askan wi génn leen ba askan wi di génn moom ñu ne ko doo génn tëj ko ràpp gaynde xombal gii doomu leen na ñang beeg màgget joom ka bokkat bokkal promotion génn pee moom mu génn na bokk ak moom xombal kooku dëkk mu dëju mu génn dem ba ca ñi nga xam ne mooy policiers yi di di ñaar di négocier fi ngay xamee ne rek sénégalais yi pare nañ ci Ousmane Sonko donte nag am na ñoo xam ne dañ ko faan fenam yu metti xam nga yàlla bi muy wàccee fen Ousmane Sonko dafa ne dox jox ma ko kenn kii ku fi ku fi fen rek Ousmane Sonko lay ravitaay ndax grossiste bi moo ko yor mu dafa dem ba ca policier ya ne leen sama doom daa war a jàngi daa am cours 9 heures nii te naa wax boobu la wax ndaw boobu la wax ndaw ndaw yi génn leen ñaari nit dee wàcc xaw ma ñett waaw wala ñu toogaat moom Ousmane Sonko mu ne bokkul ñu ñu rejeté benn liste mun a liste bi ñu rejeté par force par A par B da ciy bokk te bu fekkee bokku ci yéen ndaw yi laay waxal mu ngi ko waxee si place de l'Obélisque jour élection yi bu kenn dugg voté la woon fa woon. ba ñëpp ne nitu fitna la gis nañ. mais ko wooyee bii passé. waaw may ma rek may ma rek may ma rek may ma maa ngi ñëw bu ma dagg. Mhm. mu ne la woon fa woon ndawu Sénégal yi ñiy bëgg seen réew am seen wàll ci nar wi na la woon woon ni na dootul amati. gisoo as euh, euh, élection yi am na gisoo fuñ ne sàcc gisoo fuñ ne njuuj njaaj lépp jaar yoon ñëpp teg seen bëgg yéen a njëkk a génnee résultat te kenn constaté wul ba tey gisoo kenn ku taxaw ne lii pourquoi ça. d' accord léegi fi may jeexaleeg yow rek mooy ci député député APR yi ci loolu laa jeexalee ndax keroog sortie bi nga def dégg nañ la ngay wax naan ñii dañ fa nekk di daagu ñii ñii di def ay affaire ñii di def affaire sa jàngat ci di nga xam ne taxawaayu Coura Macky ci sa jàngat noo ko gisee assemblée. gisee wu ko leen yal na ko yàlla jàppal taxaw ko du ma wax ay waxam su ma bawee nit du ma ko tooñ yàgg naa di ko attaqué tontu wu ma pare naa ci aw ma dara lu may wax moom bu ma attaqué dama génne sa ma génne samay preuve aw ma dara lu ma koy wax aw ma dara lu may wax ci moom. tey gis na vidéo bu mu def. sama yoon newul ci moom sama yoon newul ci moom la fii faa Fanjaay fi nekk boo demee ba gis ko boo ko tàllalee micro du amaat dina la tontu ci la mu def. d' accord Fatoumata Ndiaye Tampi ñu ngi lay jaajëfal sa sa mot de la fin ci ci émission bi. ne stop non violence à la femme dafa war a doy dafa war a dakk loolu laay wax di sant di gërëm ñëpp nag ku lim juum ñëpp kaw ba cat Pribor Mbabor ñëpp di leen sant yéen people 221 di sant followers naan nag xaar retour man xam nga damay lire commentaire damay lire saaga man damaa tul man mënatulee ma far ñente ñente def ngeen lu ne pour bëgg maa xokkatal man sama sama fit moo jeex amatuma fit li ngeen di wax naan ay la mu wax nii c'est c'est parce que dañoo war a dal ci kawam moom léegi nee nañ kenn ñemewu la wax si Moustapha Sy mi nga xamante ne moom mooy njiital pire doon tam bi nee na moo am fit nañ dal ci kawam ñëw leen je vous attends avec les bras fermes bi sama ngeen ñëw foo leen fekk man ngeen fekk ak sama jànq ak mm-hmm. samay doom mm-hmm. kenn naw fi garde du corps new fi dara new fi ñëw leen xam ngeen yéen da ngeen di baan baan waaye baan leen boo leen ñëwee bu cinq duggee xam naa ne kaddu moom dinaa leen wàccee ci tuy tuy tuy jeex nuyu naa leen ziar naa leen ngeen jëf mbokki internet leen jox rendez-vous bi beneen dig dajee jërë ngeen jëf